noo ngi baal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla nañu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te dox ci suñu diggante ak suñuy moroomi jaam te dëgëral ñu dëgëralal ñu suñu pas-pas te bis bu set yàlla nañu yàlla di musal ci lii lépp luy yàq suñu pas-pas tomb bi ñu fas yéene fàttalante tey day jëm ci coow yu bare bare yoo xam ne dafa mel ni xëccoo pas-pas moo ko jur ku wax ba daaneel moroomam feelu ko ñuy weddente loolu nag Euh, jàkka juma am na ci lu mu ci war a wax bokk yi pas-pas bu wér dëgg-dëgg moo jant bii ñoo ko bu àtte walla weer wi jant bi bu xase ba fenk kenn du xëccoo may ma mboxoo fu waay nekk dana ko fa fek bu nek ci birum nek sax dana yëg ne jant bi fenk tour yi ñu koy wooye mom jant bi mën naa wuute waaye ñëpp ma sa xamandoo bis bu sax buy xëy penku lay jóge lolu aduna bépp ko bokk la xibla bu ñuy julli jëm man na wouté waye xebl fi jant bi fenk fenn fe ci aduna fépp fi mi soy yit fenn fe ci aduna bépp ñëpp buy xëy penku la leen di jóge buy so sow lay soye wala sax sow la ko tudde far ak penku te penkute penkutal jant bi ak sow sow ak jant bi fi muy soye kon pas-pas bu wér moo mel noonu moo nekk noonu pas-pas bu wéree day boole aw nit ñu bokk lenn luñ jàpp bokk nuñ ko jàppe bokk nuñ ko xame ku doon nelaw sax bu yeewoo buñ ko yeeyee ci nelaw ne ko nangam ak nangam lu mu doon mu jaar ca naka ne la di jaare muy jenn wax ci loolu mooy pas-pas bu wér kon pas-pas bu wér day dajale aw nit loolu yomb naa xam ci aj màkk gi ñu génn ña fa dem ñépp ku ci am ak ubbi ko tuuti euh, doon dox ci mbedd mi da nga gis xeetu nit ku nekk da nga dégg làmmiñ wu nekk ñu di ko fa làkk waaye bu armal dem mun a jote lang yi day réer làmmiñ yi day réer melokaani yaram yi réer waaye ñëpp ñooy bokk nu ñu def ñëpp xamanoo nañ ne mun a lañ jëm bu ñu fa jógee jaar musdalifa jëm arafa jëm euh, jëm arafat moo ci topp jóge fa dem musdalifa sànni jamra dem tawaaf moo ci topp ñëpp ko xamanoo kon pas-pas bu wér day boole aw nit waaye pas-pas bu wér day bennale aw nit ñu bokk lenn lu ñuy def ku ne xam na ne daara yi ci diine lislaam lu wuute la lu bari la wuute ga wuute nag wuute wuñ ci ponk lislaam yi ñaata la wuute wuñ ci julli tisbaar ñeent ak takkusaan timis ñett gee ñeent suba ñeent suba ñaar loolu kenn wuute ci te fi muy gën a leere it mooy bis bu nit ñi demee Makka di aji lu ñu wuute wuute jenn iliman la ñuy am mooy jiite ñépp nangu kon pas-pas bu wér day boole aw nit leen benn la waaye bànneex ak bakkan lu mu dugg def ko ay xaaji xaaj yu bari kenn ku nekkit di wéy ca nam ko xalaate ak nam ko gise te kenn ne kenn ko xalaatam kenn laaju ko gis ci sax loolu it saa bu tàmbalee sosu di jëmbëtu tàggoo day gën di bari moo tax ku wax keneen weddi ko ñii am ak njaboot la tàmbalee ci kër ya am nañ ci yan bu dis gan yan bu mooy lan mooy ku ci gimmi rek ñu tàmbali laa jaarale ci donte mënugu ko xam moom waaye ngi tàmbali ko jaarale ci yi nga xam ne bis bu demee ba am pas-pas bu wér ca lay jëfe jëf jë jëf jë da cay feeñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañ ko tàmbalee ci euh, su gone mën a lekkal boppam ñu di ko ñaax ci dama raxasu ji basat ñaareel ba suy lekk ba ndab li ñu dindi ca la ne kaw ndab la tegal ci kanamam ne ko bu ko te bul weesu sa kanam tay tek tek boko dege moy bu tibbe sex bala mo tibbaat lam lam sexoon mokk Dora, ba mon nako dora ne ci waj tayu te tayit di lek lu yam muy ban lolou mu gëna sax ci li nit di man su demé ba am juróom-yaari atu ma sëkk saa julli nako wo mu ci pagam su yagge dana man ba bu àggee ci war a xam lu mu doon fekk tàmm na ko te lu nit def ci juróom-ñaari at bis bu amee fukki at ak juróom-ñett fukki at dana ko bëgg ndax da koy tàmm ñàkk kaa def daal moo koy jaaxal waaye su demee ba am fukki at nag ginnaaw tàggat na ci ñetti at yu mat sëkk su ñuy julli suñ ko wooyee ne ko loo tee julli julliwul te waxut lu leer jar nañu wantal ko yoonte bi sax sallallahu alayhi wasallam nañ ko dóor nañ ko duma te bañ ko gaay duma bam xam lim def ne lu graw naka nonu yit di wax wax ju yiw digganteem ak ñi ko mag mu jox leen ñi nga xam ne moo leen mag mu jox leen rak fekk rak jox na ko mag waaye ñi nga xam ne it maase mu def len ni bopam lolu moy jikko ju rafet waye sa bu demee ba tàmbalee jang métier it métier yagn koy jangalit ñu won ko ci pas pass bu wër moy lan moy lu muy def lu nek na dem laaj ba xam lu ci yalla digle wala lu ko ba nopi ndax nit mooy bis bu demee ba mokkal métier am engagement yi muy jël ci liggéeyal nit ki mu koy seqal du rax ci métier ma lu ci bokkut di ko jox ci ab liggéeyam lu bokkut ak lam ko lañ digéewante woon ci lay tàmme it bis bu mu ko nee su buñ ca àggee dana sotti buñ ca àggee fekk sotti na loolu nag bokk yi day mel ne jamono daf koo soxla lool jamono gi daal dafa mel ne njaboot gi moom li ëpp ci li ñuy siq ak ñoom te loolu dogalub yàlla daal la mooy jur leen kese jur rek da nga dégg ci woote yi kuy wax ba ne bu dee taalibeeb murid la mu ne sëriñ bi mbiram kenn du ko fekk ci ay téere desu ko seet ci téere yi waaw moom gannaaw fekku fi sëriñ bi nu mu koy xamee nu muy xamee ci sëriñ bi dara kon xanaa du mag ñi nee nañ rek nga am na benn bés ak toog nañ bis fa barab sàngam rek loolu duyut ci kenn ku ñuy àndal te ànd ga nar a wér sax ndax bis bi sëñ ku ne mën na laa wax lu bees te moo ne sëriñ bi day nee na woon bi muy sañ ci Tuubaa yàlla na ko yàlla defal dëkk bii doon dëkk boo xam ne day mel ni aw ci dëkk gi fi nit ñi dëkk turu tuubaa nag mooy pajub aajo rek waaye tudd na ci ay bayit yoo xam ne ku ne xam na li tax mu joxoñ dëkk bi joxoñ na ko ci biir wax ji li tax mu sanc ko mooy lenn ci bayit yi ma jàng léegi def na suñu borom yàlla na nga ma ko defal mu doon daara bu faw daara nag fu ñuy wute xam-xam bu dee turu daara wi nag la jiitu ci li daara di joxe mooy jàngale pas-pas bu wér defal ko ko it muy barab boo xam ne bii barab buy daas am xel lay doon di fecc lil boroom xam-xam ndabam loolu sëriñ bi bindoon na ko bu yàgg daal di joxoñ ay jàngukaay su mu tuddee jàngukaay rek kon day mel ne jafe-jafe bi yépp ñàkk jàng ñàkk xam wuute ko ndax tawxiid teg yàlla fam fa ko nit war a teg lu ci yées rek leneen daal dafay dugg te la fay dugg day daal di am place bu yaatu euh, suñu borom bi ngi wax ci alxuraan ne am na ci nit ñi ñoo xam ne soo leen neen yàlla yàlla yàlla yàlla kese kese da daal di gis seen xol yi fudd ñu tàmbalee mer. melna da nga leena fatankhal waye so tambale wax ci leneen ludul yalla kessa kessa kessa da ngay gis sen xarkane man اذا ذكر الله وحده ازمئزت قلوب الذين لا يؤمنون واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون الايمان بالاخره مو موي باس باس بو بو وير وايا نياك گم بالاخره موي باس باس بو يانق كون خامنا اي بن bu ca benn ñanqay sax wet gëm féete yéen wa duutu neex waxu waxuma laa nag ay gëñ yu bare bari yanqandoo ci biir gémmiñam nit ki moo waral mag ñi daan yoon ak joosu am yéene si gura lool te amatuñu lañu ko sàqamee ñu wut ak joosu di ko màcc di wan na ndox ma di yàbbi gura gi ci boppam yàlla yàlla musal ci loolu ci suñu pas-pas am na feneen fi muy waxee naan eh, bu ëllëgee da nga gis ñu naan yàlla su ma xamoon ne nii la yëf yi demee de man du ma dund bay faafu bay taseeg fii yàlla ne nag tiitaa nga jooje ak njàmbat loole daa leen ko teg mooy ba ñuy dund ci àdduna soo leen mas di waxtaanal ci yàlla nee na yàlla nee na kese kese xéewal yàlla def ci kaw suuf sax dañ koy weddi waale far maanaam ñàkk weddi ci xéewal yàlla mooy ñàkk caa sant yàlla waaye nag soo leen indilee leneen lu bokkut a yàlla yàlla kese kese loo wax ñu ne wax nga dëgg de ñee dañoo metti ñee dañoo taral waaye yow mi ni nga ko wax rek noonu la ndax noonu laa ko gisee woon dalikum bi annahu ida duiya allahu waxdahu kafartum wa in yushrak bihi tuminu yàlla nag waxoon nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nit ñi danañu la ndax am na ñuy ñëw ci yow ñoo xam ne dañuy ñëw rek ngir seen ruu yi maroon na pas-pas bu wér ndax ñi ngi woon ci diine sànkam diine Seydina Isa wala diine Seydina Muusa waaye seen pas-pas yi dem na ba màggat te bëgguñu lu ko rax kon buñ ne Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi la sallallahu alayhi wa sallam danañ danañ ñëw am na ñoo xam ne dañu dañ si kumpa kepp ba xam buñ démé lañuy ñuy nettali ji fañ jogé woon am ñoo xam ne nag diw ñom lañuy xol xool rek luñ dugg ñu duggu ci waye ñun ñepp suñ ñëwé ne leen man kat yalla ma yoni di ma lo di ma lo dencuma yoruma ci sama loxo mangasini caabi yi mangasini suñu borom yi nga xamne li nit ki bëgg lepp da ca nek yoruma caabi jojo luy ñëw ëllëg it xawma ko du ma malaaka it nit laa waaye nag ci ndigalu suñu borom laay dox mooy suñu waxee ne yàlla di wax yonent bi naa ko qul laa aqulu lakum indi xazainu llahi wala alamu alxayba wala aqulu lakum inni malaku waaye in attabiu ila ma yuha ilayya يلا نحن ينتي بسبوا ونال هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون كو اندلو لير نان لو خمني فيم كوي تك داراي بك نيكو تي داراي بك ادنا نيكو تي داراي بانخ نيكو تي داراي ادنا نيكو تي دغ دغ كوكو نكو امم خل وارغا كو مانا دغلو وارغا مانا خلات لي غاي واخي بو غالو سكر نخ كو نجار اخ غتام دي ku ne xam na ni kenn du ko dendale ci looy wane ak koo xam ne dana fatuus di làmb am na fi wax ci alquran it nan mbaa du suñu leen indilee lu neex ci seen bakkan ca ci kaw ka koy wax ci bakkanam dong la ko teg ngeen ne kii nag mooy waaja ña wax démb dañoo su wax ji naan yàlla nee na kese kese kese ngeen ne ko fu ñukk mooy fi mu wax ne afa kullama jaakum rasulun bi ma laa tahwa anfusukum mustakbartum yàlla na yàlla musal ca lool ñàkk xam-xam nag lu dal nit ñaare moo ko koy teg ni mu ko koy tege mooy lu ñëw mu jàpp ca ku ñëw itam mu jàpp ca moom bu keneen ñëwee bu gënee bees mu jàppaat ca masna dal mel bokk mo xam da ñew ci Tuubaa ci magal di laajte ab serignam te xamut num tudd xamu fu dekk ci Tuubaa da doon def ku fa ñew rek mu jëbul ci mom kam mu jëj jëbul nak ne ko magal gi de mi ngi jub si invité naa ko sa waa mu ñew na ci Tuubaa and ak waa këram gépp ak bagaasam te xamut koku num tudd turu mi muy laaj daal kenn ku ne xam nga ci lu ëpp téeméer bi daanaka kuy bàyyee mu ne wax jotuma ko wax nag bët gum dëkk ki Tuubaa jotuma ko wax neena mo dal daal na ngeen magal ci kam dal kërëm ne ko waaw te nga dal fii mu dal fa mag jall mu ne ko waaw loo ko doon doy may day sama sëriñ mu ne ko te nga ñëw bi man far mu ne ah kay yow mi yaay sëriñ bi kooku lu mu gis japp ci ñàkk xam-xam sëriñ bu mag bi nak bi sëriñ tuba mom jaanam mi ngi bëgg wacc te mandarga yiñu gis ba mi ngi bëgg wacc kanam la nah, jëm ndax wax na ak mag wax ak ndaw wax ak kudul mag bu ndaw bi muy wax ak ndaw ñi nga xam ñoo toll ci laxas wala ñu tegal leen ay ci seeni penk seeni pooj ëlluwa wala ab jukki wala ay këyit waxoon nag ñoom neewoon na leen kat ku ci bañ gàcce bu ëllëgee gàcce nag weesuwut war tontu ci mbir ñu laaj la ngay dam ay bant neena na su ngeen bañee kooku gàcce dem leen jang ba fu ngeen tek seen tànk ngeen xol ko da ngay da ngay jang mbir ba xam ko dool ko jema def waye jëf jo xana ant ko xam lay andi na su ngeen dee jang nak na ngeen jital li tektale xam-xam bu deugar bu boo xam ne dara ci ay tiaxan raxu ci amut werante amut ay dóor dóor boo ko xetu fan la moy fi waxe ne ya ma'ashara shubbaani in khiftum khajal fa qaddimu taalluman ala amal fa qaddimu al aqaida sunniya mujaradatin an firan wa mirya dalna nak sa bu sa bu sama kat daano ba nga dégg sa nop laggal ndax jàng jàng moom du wess waye jàng nak dana wess juróom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne jullit bu nek warna fexé ba ngor ko bala mo faaxu euh wara tollu ci jang te jàng wo bokku na ca ndax daf ne ye moy euh ak ndaw bala magata dik am jot bala jotate dik ndaw ak ndaw mooy ati jàngi jàngi euh, ñàkk jot mooy daanaka ak mag rek ndax nit ki bu xasee ba yor kër walla ñu jox ko ay responsabilité ci ab poste daanaka jàng day daal di weesu si moom lu mu jàngutoon rek day daal di weesu jàng nag mën naa bañ a weesu euh, moo tax mu ne gaaw leen dem jàngi jàngi nag dafa aaje bësanteeg sa bakkan bu baax a baax a baax ndax bu dee jamono ji ñu toll yi xew daa bari koo gis mi ngi taal ab dara ci loxoom di wëlbati këyit wu jeex mu wëlbati weneen saa buy bëgg jeex mu joxoñaat ko feneen mu jàllaat fa jumtuwaay yooyu mën naa joxe ay maalumaat loo xam ne da nga koy xam ni rek waaye detaay yi dëgg-dëgg di ca laaj ñu dana ko tontu dem jànge woon moo la koy may xam ku leer moo tax mu ne bu kenn wuti len ci at yi mi tollu ci jangi te demut jangi ndax bu nege ba doon mag soo ko xam jarañul xam-xam su demee di jangi it mën na ca baña am lu toll na lam ci doon am bam doonee tollo ci at jangi fasari'u turran ila taallumi wa jahidu nufuusa bitafahumi wala taaxiru taalluma ila kibarikum fa daaka yaxrimu lula dal ne nag ku nekk ba doon mag ne léegi léegi ral yëf yi wër ko mu bëgg a laxasit am na lu bari lu jàll ndax su fekkee daa tàmm naajee yow waxtu wam ne ba ko neex lay añ waxtu ba ko neex lay añ nag mën naa bañ teg ko amub añ waaye daf koy def ci waa joo xam ne dafa nekkoon Tuubaa bu yàgg ci jamono yu yàgg yi nga xam ne Tuubaa neexeegul nii mu neex da bëggoon adina lool di wote ne lu ne man nako lu ne am nako ko bu ku nit tege ba gane ci ko yit du joxe dépasse fen du agn du reer du nekk so ñëwee wax su suba da ndike gun nga ngay dédé mën nañ dem kër diw lo bëgg a mu ne kafe ak ñoom mën nañ dem kër diw am na lambar lambar dem kër diw su agn joxe mu ne ko lo bëgg a mu ne ko ñalang la bëgg a mu ne ko nañ dem kër diw am na fa ceebu ganaar nañ dem kër diw da kër diw fa kër diw da nga ataya mu ne waaw ju woyof la ju tàll mu ne ju woyof mu ne nañ dem kër diw am na fa kafe ngoon mu ne waaw danaa ko naan nag mu ne ko nañ dem kër diw day am jar wala du ko am mu ne dana ko am wala du ko am mu ne ko nañ dem barab sàngam reer cere lay wala nangam la muy taam mu ne nañ dem kër diw dëkk bépp la xam fenn fu ne la ñu togg xam na ko kooku woo woote na bañ dikk waaye amul lu mu leen jox te xamul fu mu jëm ak ñoom it ndax su ñëwee ñu ne ko eh suñ bi rax su mujj nga fekk day taar dem feneen limi wax yomb naa xam lol motax mune kep ku jëkkante wut bi doone ndaw xop aw xop lay doon rek ngelaw lu ñëw mën na ko yóbbaale te lay leeg ngelaw doon ko fo xamne ngelaw mënu fa génn xop wa kullu man lam yatabadar fi sibah ila taallumi wa qaadahu hawaah فقل أن ينال فيه المطلب إذ فاته تيسره وقت الصبا كن فسارعوا للعلم مضعنين ناوين وجه الله أجمعين نينا سرين بدوزكو خورج أي تيري وير دي والي نانكو خورج النبي صلى الله عليه وسلم أي تيري وير دي والي نانكو جانغ القرآن نحلبه القرآن موني وخلوم لوب ba léeg-léeg nit dégg ko déggin woo xam ne bu koy nettali day mel da ko fekk woon tamit loolu bokkut ak li sëriñ bi wax sëriñ bi nee na ku dox seen digganteek jàng li na ci biir téere yi sooy wër ci boo amee leetar bu jëm ci xalifab seytaane ci kaw suuf boo ko teggee doo gis xalifab seytaane te nee na ku laan ku neen ku leen di wax ne bu leen xool sëriñ bi ci téere yi ndax nekku ci kooka weddi waale na ne yonent bi nekku ci ay téere de su ko xam waaye weddi waale na li alxuraan di wax lépp ndax nee nañ alxuraan di wax lépp na ma yàlla baal du xam-xam yàlla na yàlla musal ci bopp pas-pas moo tax mu ne ku leen teral wuti xam-xam ba wutiwu leen ko moom ci boppam na xam ne kii mu tayalloo ci wuti xam-xam ba wutiwu ko lu mu yàq buñ koy sédd wàllam dana ko fekk fa mu ku munta jàngaloo ci nit ñi it wala jàngewoo it bàyyil ko jàng ma dem jàngi moom wa man nahakum an taallumi fa huwa xalifatu layni mujrimi fi kulli ma yufsiduhu wallahu jal xasibuhu yowma aljazai walwajal nee na it képp ku leen di ñàkkalal fayda xam-xam ba tax ñu baree bari ñàkkal ko solo ba lii am nii am ku wax nga ne mooy waaja nee na ku leen ko ñàkkalal fayda ci jamono ji rawate na nga xamne fofu lu ma fi dugale lo xamne ne mën naa sax bokk ci discours jamono ji euh bis bu sa da wara a yees ndax xam aduna bi moko forcer nit ñi ku jàngu dara yit teewu mu mana xam ben radio dana ko fekk néegam moo xam mom wala télévision wala mu yor ci loxoom benn appareil boo xam ne lu mu bëgg xam ci àddina bi benn ñaari baat ngay bind rek mu indil la lépp kon discours yi bis bu set la war di yaasaat ndax léeg-léeg ñuy waxal nit ñi discours yoo xam ne 1930 la woon juróom-ñett fukki at ci ginnaaw wala discours yi 1912 lu ëpp juróom-ñeent fukki at ci ginnaaw wala téeméeri at su boobaa nit ñi dañuy toog la déglu rek. ba nga àggal ñu am ay teggin ku nekk tasaaroo dem rek waaye li ngay wax duñ ci jàpp dara ndax dañ laa rawaay lu bare bare bare dañoo xam li dañoo taseeg lu bari ci mbedd bii ñëw te yow yëgoo ko nekk moo tax discours yu yàgg yi ñuy wax di ko wax ak a saa su nañu ko fàttali li ëpp ci ñuy wax ak nit ñi la weesu la ñuy wax rek ak li ñëwagul ëllëg waaye daa mel ne li xew nii fi ne dañ koo xamut wala dañ koy daw te fekk sëriñ bi waxoon na ci bu dee ku sukkandiku sëriñ bi la bu yàgg ne jamono jii képp ku leen ñàkkalal fayda xam-xam mi ngi leen jugal ci biddaa bu ñaaw biddaa nag boo ko déggee mooy loo xam ne nit ki daf koy def jàppe ko jaamu yàlla te amu fu mu ko wér ci alquran nee na wala yonente bi nee na sallallahu alayhi wa dal ne adduna li ci am njariñ mooy liggéey kër-kër yi waaye liggéey bu mu mën a doon nag na ko xam-xam jiitu bu leer nañ ba ab du si xam-xam ca yam إذ كل من في ذا في ذا الزمان منع من التعلم فإنه دعا لبدعة شنيعة إذ العمل إن لم يكن بالعلم شابه خلل فالعلم والعمل جوهران لخير الدار يجلبان كون سووتي بري فنفنك نت نيت بابام فا ديفا ويجي ñey wuy ji li ci ëpp ay ndaw la doon woy jur am na ci yan bu diis am na fu moo war a jaarale doomam te famille Sénégal du doom kese kese des na leen jox ay nit ay nit ñëw jox la seen bopp lépp di ak njaboot waaye nag ki nga xam ne mu ëpp ab yan mooy ki nga xam ne nit ñi nit a ñëwul boppam nit mo dox ak tànkam pass ñëwal bopam ba ci mom mu dox ko bopam baye ko ay mbiram koku mom wurtu sala tay la wurtu sala lek sa su nek dafa war di xalat ci li waji wax ak man lum do doon ak radio yi ci jëmmi waji ji fas radio ak télévision yi fas yéene Facebook fas yéene Twitter wala whatsapp ak ci des yëpp ndax yooyu dafa am yaari wet am na wet goo xam ne des na dem gëstu ca xam-xam waaye ka cay dem di gëstu ci xam-xam nag day fekk mu am laytaay laytaay ju dëgër dëgër ba nga xam ne lañ koy indi lépp dana ca mën a tànn la muy jël ak la mu jël waaye su fekkee manipuler dong la ak dugg fii ak génn fii ak télécharger dañoo war a def fatwa xaraamal ko ci ñu bare bare bare bare ndax bu ñu ca demee dañ ca yàqu donte ñu ko defaroon yàq taxu leen war a jóg dañ doon wut alal ak a liggéey waaye yàlla def na jullit yi ñoom am ci tawfiq joo xam ne xamuñu fu ñu ko doon jële ndax ñoom juguguñ nag jëm ci yooyu xarala ba man caa def dañ cay def waaye saa bu duggee ci loxoy jullit yi nag ki nga xam ne moom aw nit dañoo ñëw ñëwal boppam di mag magum jëm xam xàmme daa war a jëkkanteeg moom facebook wala twitter wala ay skype wala whatsapp ak ay yi ci des yépp bari nañ ay ay façon yoo xam ne léeg-léeg nit sànni ci loo xam ne lii da koy sànni rek te sànni moom boo ko def rëcc na la day mën a tas ak bokk day mën a tas am réew sax fa kon yan bi lu diis a diis la mi ngi tàmbalee ci borom ak jaboot ñim jur ak ñi ko jural jox ko ko waaye rawatee nag koo xam ne dañoo ñëwal boppam ne ko man maa ngi nii maa ngi nii nag soo ko waxee ba mu nangu euh, ki ñëw wax ko moom am na fu jaanam wàcce ndax xamul yoon wi xamul aw yoon te bëgg naa dem ci dëkk ginnaaw doo doo loolu nar a jàppale ab chauffeur nag te kaar baa ngi taxaw wala oto baa ngi taxaw saa su nek war nga koy war ne amna naa permis te dama ko lang ba am ko togu musuma ko rek permis bu fekk di respecte tableau yi di respecté ligne continue ak discontinue yi di xol kenn ku nek lu nek ci auto bi nax nim ci nek war na ci nek wala def lolu waru ko ku yore oto bi lay limay wax ni ay wala la ñu leer la waye bu ko su ab tafukat da dugg ci bir auto bi di tafu di tafu ba tafu ñepp té bi mi taf mi ngi doon jéggat xana biir auto bi am na rétroviseur amu ci soxla mu taf ba wàcc ñu ne tafu nañ ñu mu ne yëguma ko woon loolu musiba la ci ab sofor waaye bagage yi dugg ci auto bi it ci ab saak saak bu ci nekk it soo mënut xam la ca nekk war ngaa xool waa ji ba xàmmee ko ba ëllëg si bo nga man ne kii moom moom saak bi waaye dugal ci saak yëpp dugganoo ci biir nga nangu koo jël ba noppi ñu ne saak bi li ci nekk nag borom ne cëpp daw mu ne xawma ko moom sax bi loolu du ko ci kenn te ñi ngi jëm foo xam ne fii li alxuraan di bari bari bari bari bis boobaa ko tax di wax te bis booba li mel na mag waxoon mu firi kaamil alxuraan bépp def ne woon huwa allazi doo gis ci alxuraan la cay topp nit mënu ko huwa allazi jaala lakum al arda firashan wa samaa binaaha هو الذي خلق لكم ما في الارض هو الذي خلق السماوات والارض لان هناك كل خمن يلا موجي ويتنغم يلا ما مانك ما يجي خرندو تي بيس بو خمن كو جيتو اك كاتوب سا غيناو بن بو نيو بو نيوي كين كو نيك دالاي تك بالام لا سي ديغنتك كان رام توب داي لا سي ديغنتي مام موم يو نوكو جابون موم يالا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا دور الشيخ سين الدقن تيان نار مملا لا يوقتي أنا دانا أم يوخم كي يتوب داي سام بخلم بلين سيني مو سام بخلم ربكو نكو يولا دلتا إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب بسبب نتجلنجم تبس دايقن نتجاكسي دي kon kuñ ñëw ci moom ne ko damay ànd ak yow na xool la muy wax ba xam ko ba leer ko la ci gën a néew mooy saa ko nee loo xam ci nangam mu xam lu mu ko cay wax waaye saa bu laajee nga ne bàyyil ba suba dewal bu suba balaa suba nga wër laaj te ñi jàng ñëpp bokkuñu fuñ jàng boo laajee fukki nit mën nga am fukki version yu bokku waaje war a xëy si suba loo koy wax loolu nag ku mu weesu ci moom it mën na ko waajal ci ak njabootam njaboot junj naa ko léegi mën naa yaatu ndax fi mu nii jamono ji toll na foo xam ne kanam la jëm du la war gannaaw mukk ci kanam tuuti dis na laaj loo xam ne tontoom du doon jóg di pes kala ko laaj du doon jóg lakk këram du doon nañ ko sàkkal tax waaye jamonoy argumenté lañ jëm fi mu toll nii te tàmbali nañ ko ndax lu may wax dana dem fépp te fu mu dem fépp lu mu néew néew bu ko téeméeri nit jàngate juróom benn fukki ya mën nañ caa bañ a jubóo ndax ñoo lay raw fuuf te duñ la ci gën dañ koy weddi ci saas moo tax di wax ñu dala weddi lu am maanaam daana indil aw lay ay yonent yu yàgg ya euh, dafa am bis kilifa di wax ba yàgg benn waay na ko gëmuñu la mu ne ko ndokk wax nañ ko ñu ma gën fuuf kenen di wax ba yag ñu ko waxo dëgg da ngay fen mu ne wax nañu ko ñu ma gën foofu wàññi ma dara te wañu leen dara motax juk jotna ci kanam tuuti mom feeg juroom fukki at des na laaj laaj yo xam tonto du pes kala la ko laaj du lak kërëm ton du doon tontoom porte ko plainte du doon da ngay tek mu teg ba bang ko yey wala mu yey la su la yeeyee nga dem dang wat rek ndax buntu xam-xam la ubbi ko ubbiku na ci jamono ji junj naa machine yi legi waye fenn su nek nit man na fa dem legi ci diggante bu gatt kon alal bu bare nañ set awalawiyat awalawiyat boko dege moy prioritaire yi nga xamne mën ta ñak ku ku ko amul alal da nga war alal def ko ci ba ca jitu moy jang xam-xam ñepp ñëpp nag mënuñoo maase ne ar wan na aw lëf waaye am na fu ñu war a teg foo xam dañu ne fii moom kenn mënu fay ñàkk agsi ña ci des jàll ña ci des jàll ña ci des jàll noonu la adduna demee saa su nekk kon yàlla nu yàlla dëgëral ci pas-pas bu wér ba ñu mën a xàmmee kuy woote ak kuy wakke kuy woote mooy woote mooy daawa wakk nag mooy diaaya diaaya mooy li ñuy publicité ci télévision yi di la wax na mu baaxe te fekk mën naa am boo demee lañ ko waxee lépp dégg nga noonu daawa nag ki la koy wax danaa la jant bi penku lay penku lay so lay fenk bis bu set sow lay sowee bis bu jant bu tur yi ci wax yi li muy def ñëpp ko xamandoo ñëpp xamandoo njariñam ñëpp xamandoo aw doxinam ba ku la bëggoon a wax ne sow lay jëm it lay xëyee di jëm penku it mën nga ko ruus rek waaye xel da koy bañ lu jomb la. téere boobu ñu bari di ko jàng day junj ci bopp téere bi buy jublu pas-pas danaan la waajib luñ ko wax luñ ne lii waajib la si mbir mi kenn mënu koo tàggaleeg moom lool waajib nag ci ab jaam mooy pas-pas bu dëgër luñ ne lu jomb la kenn mun a fexe ba boole ko mbir ma mooy yàlla dañ ko war a boole ak leneen dañ ko war a boole ak ñeneen loolu tax loola li ko yàlla bañe nit ñoo ko gën a bañ yàlla amul kenn koo xam ne nangu na aw nit ñëw rek sañ ci këram laajuñ ko ndigal ñaanuñ ko wóotewul ab luyaas xëy xëy sañ si mu ne looy def fii nga ne ko damaa toxu si loolu kenn nanguwu ko ci këram waxuma la nag nit ñëw fekk nit toog ak soxnaam mu jàpp ci senn ci senn ki soxna yi bëgg a dugg moom ci mu nekk foo ko jëmee dama cee am yitte kenn du ko nangu yàlla ko gën a bañ nit ñi nag يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين